nekk HLM Grand Yoff ci wetu Brioche Dorée en face Yacine Coiffure di yëngatu ci wàllu restauration euh, pizzeria ak fast food. dëgg yàlla recherche mu bi dañ koy apprécier comme tout sénégalais mais bu fekkente ne côté impact nañu wax am. ndax clients yi boo seetee ni ñu doon ñëwee bu doon 100 euh, pour cent la mën naa ne wax ne léegi ñi ngi ñëw à cinq wala 10 pour cent donc euh, entraîné na sax ci liggéey bi ci ñenn ñi. mu yóbbu leen au chômage chômage ci jamono yi wax dëgg yàlla bu ñu waxul ne bu ñu waxee ne amul impact dañuy wax rek euh, lu ñu neex mais impacté na bu baax a baax a baax ci suñu liggéey ci suñu recette parce que ñun dañ doon liggéey de 8 heures à 17 heures à 6 heures du matin donc booy set clientèle guddi bi sax moo ëppoon parce que dañ ne fast food te ku wax fast food wax liggéey lekk guddi donc mën naa ne cité bi yëpp fi dañ doon lekkee guddi mais léegi 19 euh, heures bu jotee. dañuy daal di tëj ñibbi man j'habite ak Colobane mais ki démb sax bi may ñibbi ba démb dama dox pour rallier Colobane avant 20 heures donc loolu impact bu metti la jur ci suñu suñu liggéey vraiment. bon euh, comme tu le vois bi nga ñëwee li nga constaté rek moo fi nekk pratiquement amul sax client te ñu ngi ñëw de 8 heures à 19 heures li ngay jaay tuuti tuuti la clients yi dañuy ñëwandoo moo tax dañuy defar ay plat ay kii yoo xam ne dañ ko emballé pour prêt à porter bu client ñëwee rek bañ taxaw. daal di ñëw ñu jox ko mu daal di mën a daw dugg loolu li ci sama gis-gis wax dëgg yàlla décision bu baax la quoi te wax dëgg yàlla état sax mën naa ne yéex na yéex naa jël décision bu ni mel mais comme lépp c'est dans le cadre maanaam jéem a aar société bi ak ñun sénégalais wax dëgg yàlla dañ koy apprécier comme tout sénégalais comme du lislaam sax ñu waa jumaa yeeg ñoom ñoom ñëpp confidé nañu leen yaakaar naa gàmmu yeeg yi daan xew yëpp boo ko seetee ba ci appelu laayeen yi doon na loo xam ne dañ ko célébrer en famille kon donc ñu restaurant euh, yaakaar naa ñoo gën a am sax contentement ci loolu pour au moins nit ñi mën a am conscience ci ne dañoo war a set vraiment loolu moom vraiment apprécier nañ ko bu baax a baax en tant que sénégalais. waaw fii ñun dañuy def ceeb euh, ceeb dañuy jaay añ dañuy jaay shawarma dañuy jaay hamburger ay poulet fataaye yooyu yëpp dañ koy jaay. waaw cocktail waaw dañuy ay cérémonie bi ñu amee dañuy def cocktail. dañuy defar ay gâteau gâteau anniversaire hamburger pain hamburger pour ñi nga xam ne dañ koy commandé yooyu yëpp dañ koy defar ak ay pain baguette moo tax ñun bi ñuy demee ba confiné gars yi sax ñun lu ci bari amuñu problème parce que ñun lépp dañ koy defar euh, à la messe ci ci kër gi. waa loolu loolu dañ koy def par exemple tey bu fekkee ab séminaire la dañuy def couverture bi yëpp waa ay pause café yëpp dañ koy def. lu waay am rek ci ay mariage ak lu nu mel yooyu yëpp dañ koy def livraison à domicile dañ koy def parce que am nañu ay moto yu disponible yooyu yëpp ñun ñoo ko moom ku soxla foo mën a toll rek mun nga ñu woo dañ lay livrer à domicile ci lu dul yàgg sax ah numéro téléphone bi mën nga jël 77 509 34 68 wala 77 410 90 74 am na tamit 77 470 35 35. moo tax sax ñu defal ay plat yoo xam ne c'est à parce que tey boo calculer euh, côté hygiène bi di jël sa loxo di def di def di def ñu bari duñ ko apprécier moo tax dañuy dem euh, jël toutes les mesures nécessaires pour mën a defar ay plat yoo xam ne dañ koy defar à emporter boo ñëwee dañuy yëkkati rek jox la sans autant que kenn di jël sax gant di laal ak laal yooyu yëpp jël nañ ci ay matuwaay yoo xamante ne yu yu yu strict la pour mën a gérer euh, temps pandémie yu quoi. moo tax gants ay yooyu yëpp manqué wuñu ko mi ngi nele gants yi dañ koy jënd tout le temps heure boo defee benn commande ba pare sax dañ lay obligé nga changer gant boobu def beneen gant. waaw man de comme Sénégal rek ni ñu koy jooytoo ñun jàpp nañ ne dafa mel ne ndimbal yi nga xamante ne dañ koy jagleel ñi néew doole dafa mel ne euh, ñi néew doole gënuñu ci yey te wax dëgg yàlla comme ñun ñi nga xam ne ñu ngi dem ci secteur informel bi. nga xam ne pratiquement seen benn moyen doyul loolu wax dëgg yàlla ñu ngi ñaan nguur gi bu ñu demee ba mu jël jël ndimbal loolu war koo joxe nañu xool nu ñu koy organiser su ko defee ñëpp mën cee bénéficier wu. te yaakaar naa parfois sax dama koy wax naan ndimbal yi ñuy joxe maanaam ñi koy béni war a bénéficier wu ñooñu du ñu doon ay bénéficiaire ci ndimbal yooyu donc loolu c'est mbir la moo xamante ne man personnellement dama koy crier ak cœur pour au moins autorités yi dégg ko ndimbal am na ñoo xam ne yeewoo nañ ko. bu génnee dañ ko delloo ci ñooñu parce que ñu bari dañ lay wax sax naan la bourse yi nga xamante ne gars yi dañ ko doon def di ko joxe jagleel ko nëy ju doole ji da ngay dem di fayeeku bourse gis patron boo xam ne day taxaw di fayeeku bourse et ça c'est pas normal wax dëgg yàlla loolu moom loolu maa ngi koy maa ngi koy maa ngi koy jàllale waale quoi. waaw ah, ñooñu pour un premier temps nga xamante ne pratiquement mën nañ ne dañu xaw a confiné à euh, à moitié donc ñooñu ñenn ñi woo nañ leen ne leen kat ñun. heure bi ba heure bi loo ci soxla mën nañ laa livrer maanaam am na coupure mais au moins am na benn benn benn euh, rapprochement parce que ñi ngi déggante ci téléphone yi su ko defee ñoom bu ñu commandé dañ leen di livrer parfois bu ñuy wàcc war a dem dina am client yoo xam dañ leen ne allo ñi ngi wàcc bu fekkee da ngay commandé dara ñu commandé mel na ne un lien euh, coupé benn lien bi coupé na mais ñi ngi ñi ngi ñi ngi njokkoo ak ñoom wax dëgg yàlla te aussi tamit di leen rassurer que ne lii yàggul benn moment la rek di ñaan yàlla génne ko fi ba client yëpp ñëwaat ci seen milieu habituel. waaw salaamaaleykum bon ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaw di présenté wu fii euh, dibiteri Kër Sëñ fàllu ñu ko gën koo xam ci maay Ndindi nekk fii ci Grand Yoff waaw rond-point Campenard waaw comme waaw man la Mamar Faye nag man maa nekk gérant bi waaw dibitier baa ngi ne Boubacar euh, le caissier Souleymane euh, am na beneen personnel. ñu ci biir di liggéey waaw par rapport ak euh, bon couvre couvre feu bi am ak euh, coronavirus bi bon sëñ bëgg exprimer wu tuuti par rapport ak liggéey bi ak mesure waaw waaw feebar bi moom nekk na loo xamante ni bon jaaxal na àdduna waaw moom mën nañ ni jaaxal na àdduna sépp kenn amu ci pexe waaw mais nag li gën mooy ñuy sàmmonte ak li nga xamante ni moom la waa kër docteur dicté muy rester suñu kër yi pour ne pas transporter euh, le virus waaw loolu daal day mesure boo xamante ni président jël na ko ñu rafetlu ko ñun ñëpp aussi ah parce que comme dëkki tubaab yi nga xamante ni ñoo ñu ëpp doole fuuf moom la feebar bi sonal ba jaaxal leen ñun ñi nga xamante ni Afrique amuñu yenn moyen yi amuñu doole bu fi ñëwee ba def ba yëg si yenn degré yi boo ça serait euh, totalement kii sonal ñu quoi. waaw de ce fait kon autorités yi li nga xamante ni ay dogal yi li ñu dogal la moyen de déplacement lu mënul ñàkk couvre-feu bi à partir de vingt heures aussi ñu respecte ñu ñëpp sauver suñu bopp waaw parce que rester chez vous fi mu ne nii c'est sauver des vies voilà kon kooku ñoo ngi ci ñoo ngi ci waa woowaat ñëpp prise de conscience si couvre-feu bi waaw ñu bañ di def di dàqati jeeg policiers yeeg c'est vrai que dóoreeg yooyu bon am na ñoo xam ne faa ñu dóor leen aussi pour ñu respecter affaire rafetlu wuñu ko daal aussi dóor yi mën nañuy waxtaan ak nit ñi quoi di leen questionner parce que am na si ñoo xamante ni urgence la ñuy dox peut-être am na suñuy feebar wala dem hôpital wala pharmacie jëndi garab waa mais aussi ñeneen ñi nga xamante ni dañuy nekk di dàqante ak policiers di mbëllee ñu aussi vraiment ñu ngi leen di invité à une prise de conscience que ñu toog seen kër yi heure bu mën nag ñàkk waaw 20 heures ñu respecté ko waaw affaire bi nag couvre-feu bi waaw ñu ngi leen restaurateur lañu moom laal na suñu suñu suñu économie bu baax suñu kii parce que booy xool vingt heures ñun suñu clients yi heure boobu lañ doon commencé di ñëw waaw vingt ñun guddi gi dañ doon liggéey ba ay trois heures du matin deux heures du matin mais léegi à partir de dix neuf heures nga fermer nga tëj waaw vraiment laal na suñu suñu suñu suñu suñu liggéey bu baax waaw laal nañ bu baax parce que soo xoolee personnel bi sax dama ko obligé wàññi ko waaw personnel bi boo doon quinze personne fi mu ne nii cinq personnes ñooy fonctionné bu baax nag sincèrement waaw gisatuñu clients yi et puis baissé bu baax suñu ay recettes daal. waaw bu ñu doon am bu doon am cent mille francs fi nii quinze mille francs la ñuy am la am la xëy jaay waaw charge yi bari courant baa ngi fi facture courant yi mu ngi ñëw facture ndox yi salaire emploi yi location yi yëpp charge yëpp mu ngi taxaw te liggéey bi demeetul ni mu doon demee waaw ñu ngi si lancer waat un appel aussi autorités yi lu ñu mën a jàppale ci loolu aussi ñu yonte ni ay entreprise la yoo xamante ñu ngi liggéey di daan suñu doole fi ne mën naa la lu ma 10 personnes ñoo en semence technique fii 15 personnes la ñuy instant yi 5 personnes laa maintenir parce que tam du téye doomu jàmbur wante dama koy liggéeyal du ma ko mën a fay weer bu def waaw pour ce fait ñoo ngi ciy ngi ciy interpeller euh, les autorités l' waaw lu ñu mën a jàppalee daal ci loo xamante ni aussi dina baax pour suñu entreprise comme ça ñu mën parce que koor gaa ngi ñëw aussi euh, day day day jiwaat fekkaat fi ak difficulté bi maanaam dañuy am problème daal pour honorer suñu ay yenn euh, affaire waaw xaalis boobu loolu aussi participation ñoo ngi koy rafetlu waaw ñoo ngi koy rafetlu bu baax am na ay bonne volonté ñu ngi génn seen xaalis du ko ci dugal mais lu ñuy ñaan état bi nag mooy aussi xaalis boobu nañ ko def fi mu war a dem waaw xaalis boobu daal suñ ko jëloon peut-être comme ni ma waxee dimbali ci entreprise yi doon na loon lu baax wala au moins ñu jàppale ñu si yenn dépense comme lu mel ni ay facture électricité ay ndox waaw ci yeneen sarge jënd aussi lu mel ni ay produits comme gants yi ñuy soxla ay euh, gel euh, les liquides hydroquis la alcoolisés la waaw euh, les masques parce que tam yooyu pour nga am ko léegi si dëkk bi yombul mais fu mu doon jare 100 francs léegi dañ lay wax 500 tey mënoo mënoo yor personnel boo xamante ni mat nañu fii 20 personnes à chaque fois chaque 2 heures de temps normalement da nga war a jënd change loolu day métti te affaire bi liggéey bi demeetul noonu ñu ngi naan état bi daal xaalis boobu bu ci mën mënee jàppale ñun ñi ñu ñoo xam dañuy aussi pour si chargeurs yi jënd ay produits distribuer ci dëkk bi dina gën a yombal dëkk bi dina gën a yombal yëf yi ma am ci beneen xalaat aussi affaire coronavirus man dama doon proposé parce que man woote naa ci seen numéro vert di laaj ndax ndax am na possibilité am na possibilité wu dem volontairement dem def sa dépistage mais dañ ma boobu amagul mais maa ngi koy maa ngi koy lancé aussi autorité yi loolu programme boobu suñ ko mënee dugal ñu exiger nit ñi ñu dem defi seen dépistage boobaa dinañ xam ñi am ak ñi amul ñu per ñi ber leen mën a traité affaire bi jeex loolu daal laa amoon ci lu may. waaw fii dibiteri comme ni ma ko waxee am nañ fii dibi dibiteri dañuy def dibi mouton méchoui dibi poulet foie pigeon laxas waaw dañuy def yooyu yëpp dañuy def dañuy def aussi ay cérémonie dañuy soo amee sa cérémonie mën na ñëw couvrir la ko waaw defal la yëpp daal accompagnement yi muy àndal yëpp day am ci dibiteri bi. y a aussi côté fast food fast food bi dañuy def ay plat yu bari quoi waaw waañ bi aussi am na dañuy def ñaari plat ak ñaari plat ay plat sénégalais waaw yooyu daal dañ koy def tous les jours te hygiène bi waaw ñoo ngi ciy jël ay mesures comme ni ñu ko diglee soo xoolee euh, ci buntu bi nii dañoo teg suñu raxasukaay teg euh, suñu savon eau de ak suñu ndox ku ñëw da raxasu bala ngay yegsi waaw soo yegsee aussi am nañu suñu ay gel dañuy jox clients yi ñuy laal ñu tam kees yi aussi yëpp dañuy am waaw yooyu daal la ñuy sàmmantee par rapport ak euh, client ba pare wàññi nañu aussi comme clients yi ñu doon def di toog sur place di lekk boobu dañ ko éliminer carrément sax amatul ba yëf yi jàll léegi daal clients yi dañ leen di exiger jënd rek dem yóbbu sa kër waaw waaw pour bañ a dajale mbooloo meeg yooyu fii. numéro téléphone bi waaw nekk na bu dee numéro place bi dama am ñaari numéro 77 887 40 82 boobu mooy numéro bi ku bëgg a passer waaw man sama numéro personnel c' est le 77 507 64 36 waaw yooyu mooy numéro yi quoi comme tamit da nga bëgg a passé commande dañuy livrer aussi à domicile ndax affaire yu virus bi aussi maladie bi bëgguñu nit ñi di dajaloo fii soo wootee passe sa foo mënti nekk ci Dakar rek mën nañ la ko livrer. numéro livraison yi boobu. c' est 77 887 40 82 waaw suy passe commande mën nga ko passe si numéro boobu aussi.